di déglu dal leen ak jàmm ba léegi pënd bi wureegul ci coow li nga xam ne nag moom moo am jëmale ko ci jumtukaay yi nga xam ne ñiy def dialyse dañu koy faral di jëfandikoo jolikaay bii di Sud mi ngi ñuy xamal ne ki jiite hémodialysé yi di Amidou Diallo moom dafa daal di gis daal ne njuuj njaaj am na nag ci wàll gi ni mel ndaxte nguurub Sénégal la muy jëndee nag jumtukaay yooyu dafa seer te bu ñu ko méngalee ak li ñu koy jëndee ci yeneen dëkk yi nag loolu moom jaaduwul tey ji ko jolikaay bii di Sud Quotidien di ci dellu siwaat duñu xamal ne fii ci biir Sénégal am na ci juróomi nit yoo xam ne daal ñoom dañuy def dialyse wante daal ci lu tollook juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk dong de la nguur gi may daal ñu leen di fàcc ci établissement public yi te duñu fay benn dërëm wante de ñi nga xam ne ñoom ñooy dem ci biir privé bi ñoom de koppar gu takku nag lañ ciy faral di yëkkati mu ngi tàmbale sax ci soixante cinq mille ba quatre vingt mille wante amilu jàlloo moom la muy naqarlu moom mooy nag ne la ñuy jëndee kit de dialyse yi daal dafa cher mu daal di ci yokk di xamle ne boo demee ci privé bi nag li ngay fay tamit takku te am na yeneen dëkk yu nekk fii ci biir Afrique du ñu fay li ni mel wante jolikaay bii di Sud Quotidien ginnaaw ba mu sukkandikoo ci ay naataango yu nekk ci journal Abidjan ñoom it daal di nañuy xamle ne ci wàllu dialyse cher na torop foofu nga xam ne nag moom moo ci seen dëkk ak sax garab yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo li yamba des daal yi ngi ñu denk wàllu wér gi yaram bi di Abdoulaye Diouf Sarr moom la mu gëm moom mooy daal ne kii di Amidou Diallo dafa leen di tuumaal dong tey ji ci alxames gi dinañu tàmbaliwaat waxtaan yi ci wàllu comité de dialogue national jolikaay bii di critique duñu xam xamal ne ci ndaje bu njëkk bi amoon na ay jafe-jafe ba l'opposition bi doon gedd ujolikay bii di réew mi quotidien ne kii di Famara Ibrahima Sagna kon tey jii dina tàmbaliwaat liggéeyam te nag moom faw mu fexe nag ba gën a ak ñi nga xam ne da ñoom ñoo bokk ci biir comité boobu loolu nag ñoom ñoo ko taxawal ñoom de tey jii daal dina ñuy dëdd nag ñoo lànk la ko waral moom mooy ne ñoom daal am na ñenn ci ñoo xam ne daal ñoo ngi koy doxalee ci biir collectif boobu ànduñu si tey ànduñu si ëllëg julikaay bi di libération tamit di ñu xamal ne ay jafe-jafe moom am na ci biir collectif ñoo lànk ndaxte nee nañu sax koppar gi ndax ci julikaay bi di tribune mi ngi ñuy xamal ne moom li tax mu génn nag ci kuréel bii di FNR moom mooy daal ne dafa gis ne am na yenn ci ay leader de l'opposition yoo xam ne daal ñoom dañuy dem ci suuf di waxtaan ak ki nga xam ne de moom mooy Macky Sall moom daal di ne xam ne nag ñooñu dañu koo bett loolu nag moom moo tax daal euh, ba mu jógee nag ci kuréel gi ni mel opposition boobu sax dañuy des ak moom ndax coculikay bi di enquête la ñu gis moom mooy daal ne léegi moom kenn gisatu leen kenn déggatu leen te pourtant de am na ay sujet yoo xam ne war nañ cee mën a jukki wante kenn du leen ci dégg melnum Ousmane Sonko daal la ñuy faral di gis ci terrain bi waa parti réew mi ñoom nee nañu nag sax ay fan yu néew dinañu leen gisaat parti réew mi moom sax dañ ciy desandi ndaxte coculikay bi di laas tey ji seex na ci waxtaan ak Yankoba Seydi ma ngay ñëwaat nag nag ci jafe-jafe bi ñu nemmeeku ci biir parti boobu moom mu daal di xamle ne parti réew mi sérieux problème de fonctionnement la ñu daal di am trafic de passeport diplomatique direct news mi ngi ñuy xamal ne loolu de la ñu nemmeeku nag fii ci biir réew mi te ñuy def li ni mel nag ñoom de ay kàngam la ñu nag ci réew mi ndool sama moo tax ba joriñ gi ñu dénk wàllu affaires étrangères di Amadou Ba daal di dakkal nag defarum passeport yi ngir xool ba xam daal ñan ñooy def ñaawteef googu Omar Faye mi jiite mouvement leeral askan wi tey jii daal dinay xamal suñu naataangoo yooyu ci bii di liggéeykaay yi nekk fii ci biir réew mi daal eh, groupe Sénégal amel na leen nag bor bu takku boo xam ne daal ñoom fu mu nekk nii day gën a gàllankoor seen liggéey te pourtant ki nga xam ne de moom mooy Abdoulaye Daouda Diallo moom moomu di jëwriñ daal na fii di wax ne Sénégal tout va bien te pourtant de na koppar gu goo xam ne moom mooy lank carré ne duñu ko fay nag groupe liggéeykaay yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci biir réew mi jeexalee ko ak colikaay bii di Vox Populi mu ngay ñëwaat nag démb ci ay xeexoo yu amoon ci université Alioune Diop Bambey xeexoo yooyu nag ci diggante étudiants yi la woon ak takk der yi mu am juróom-ñeenti étudiants yi ci am ay gaañu gaañu ak juróom bii di Vox Populi du ñu xamal ne étudiants yi lañ doon ñaxtu moom mooy daal ñu gën a soppi seen nekkin fexe nag ba mu mucc ay yëpp foofu nga xam ne moom mooy ci biir université bi li moo nekkoon box dilukat yi li gën a fës ci biir tolikaay yi ñu leen di ñaanaan njeextalu bës